réewum débat ak werante xoolal par exemple euh, mbënd muy xew ay bakkan yu bëri wàcc ñu ko débat werante ak wut loo xas ak def ci règlement de compte mere kilifa rek mu jiitu la ni mel meloo ko li mu am ko sa xol tàng mu wax dara nga bëgg ko commentaire te moom kii wax waxul ak yow waa këram lay waxaat yow tudd la xamutoon ne am na nga ne daj nan li ma dégg xam moo jëkk dégg ñàkk jom dégg comme yow xamoo li mu dañ la ko ne sëñ Mountakha bi wopp ji amee ci réew mi moo jëkk a génne 200 millions. keneen ko ko joxe. lii xew ba ki dem ba mën bi dëkk bee am 30 nangam millions nga yónnee. bari yërmande boole ko di leen ñaanal joxe ndigal na gone yu toog waaye sëñ Mountakha dañoo jàngaloon lu doy ba yëg yëngoo gaa yi moom la nu xolloo kon nag ku dul moom bu waxee yow sa yoon nekku ci noonu xoolu nu la dégluwul la al muntaqa la ñu déglu al muntaqa la ñu déglu kon ndaw ñi ku am sëñ Tuba ñëkkoo dara ku am sëñ Tuba ñëkkoo dara dara dara amal li setoo amal lu ne bu sa guru wàccee ñu takk seen tànk teg wata wuti tuuba kon kon ku am sëñ tuuba kon ndaw ñi nañ doyloo bi gis nga loo ñàkk lu metti metti sëñ tuuba bëgg na dërëm di wër kajoor ak bawol ko am bindu kaamil ko jaay ngir situation yu tar ànd ak maam Thierno ak Cheikh ak Cheikh yoru kaamil di jaay ñetti dërëm kenn te teewul ko war na kel nekk Cheikh Mamadou Fadel tabaski jot na fii tabaski wut mu ne te bokk yi tukki yokkul wërsëg tukki yokkul wërsëg ku yàlla nattu nga des ca yàlla la yàlla yërëm yàlla la yàlla te may say mbokk xolub muñ ndax dama wax na kat ki bëgg a teral yi may juróom jaral ko tàppi ci mbiix mi ba bakkanam des moo gën mbëndër yi ñu boole tux ak sàcc ay bokkam ni bët bu set ñu am gàcce bët bu set ñu fay yi bor di tëddee gone jàmboor yi ñun ñu la bët bu set ñu dig say wajur ngay jégguroo ko ki ki ki ki bëgg a teg ki bëgg a xam jàpp ko ba def loolu moo tane kii moom bët bu set ki boole man gens taxawaalu tooñ gone jàmboor ñu lay dàq ki ne man sama wajur di ko xool mu bëgg a faj mënta faj jaral na ma dem waaye booba daa xamul ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala llahi rizquha te yëpp si tuuru si xalima allah xoolal bi nga nekkee sa biiru wayjur sa wayjur mënul ci yow dara yow mënoo ci sa bopp dara teewul ngay dund yàlla moomu moo yor wërsëg yi. ana ñaata nit ñoo dem ba bitim réew toog ba am situation ba nit ñibbi si kees lañ leen andee jaaraatu ci seen kër yi ana tey ñaata nit. ñoo yor oto di ko dawal yor kër te bu ma saa bëgg añ duñ añ bu bëggee reer duñ reer xam nga ab jullit bi ko war xam nga ab taalibe bi ko war sabab lu gis nga ñàkk a am lu gàcce ñàkk a mooy gàcce waaye ñàkk am moom lu gàcce. waaw waaw sabab lu nag war na ku ne. bu nu wàññi réseaux sociaux yi nag day jël information yoo xam ne dalay lay wax réew bitim réew nii ku dem am nangam tax nga sànjaafu déedéet sëñ Tuubaa dana woon. da ngeen jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo leen am am na la doy bum tax mukk nga def la wër waaw léegi boo doonee benn ngaye am benn soxna benn doom bàyyi ko fi tabbi doon la nga beneen mbir beneen mbir nga dolli yàllaay maye maanaam xam ne xam ne xam ne war ngaa war ngaa ki xam ne war ngaa tekki rek jom la xam ngi ko xam yëg gi nga yëg ne war na la rek jom la am yëg gi nga yëg ne war ngaa tekki toog ba yàgg nga tëdd guddi yeewu yëg ne da war a tekki rek borom jom nga yow la ci des nag ci loxol yàlla la nekk kon nañu rus sëriñ bi te déglu sëriñ bi te bàyyeeku suñu bopp te sëñ bi bu waxatee digal ñoñam ku ca sa yoon nekkul génn ci ku ca sa yoon nekkul génn ci waaye bu ñu nga débattre am nañu sax du ñuy julli sax te jéem a commentaire ci waxi sëñ bi yow yàlla yow yónni rasulullahi ne diine ji waaye jàpp ci lislam bi moo ko gërëm nga lan ko woon ko fi ginnaaw ba noppi bëgg a commentaire ci waxi ku gëm yàlla ak rasulullah sa yoon ñëw ci